salaamaaleykum maa ngi tudd Ngone Ndiaye nekk doomu Thiès juddoo Thiès yaroo Thiès màggee Thiès j'ai fait mes études aussi à Thiès. Euh, ci wàllu professionnel d'abord bala ñëw xuus ci politique bi euh, lan ngañ ci mën a wax. Euh, avant professionnel dama leen di jox sama jaar-jaar si mbirum jàng ba pare maa ngi njëkkee Iba Katiba jugee école Iba Katiba dem Mamadou jaw Mamadou Diaw ma jóge fa dem lycée Malick Sy après lycée Malick Sy si laa dem CNEPS euh, CNEPS laa amee sama CAMEPS 1 en 2001 CAMEPS deux en 2002 depuis lors maa ngi dakaar foofu laay servir je suis enseignante waaw. léegi nag ci wàllu politique bi nga xam ne moo tax ñu toog ñu bëggoon nga tënkal ñu aussi say say jaar-jaar. waaw dinaa si sawar tuuti politique bi nag daf ma dab avant j'étais pas politicienne j'étais plutôt activiste parce que avant 2011 ba 2011 M23 laa nekkoon mais bi may nekk M23 dama fa nekkoon comme personnalité indépendante bokk moon si benn parti politique comme ñun ñëpp ñu ko décidé woon ñu ni ñun ñu nekk M23 jamono yoo ak opposition candidat bu génn premier tour rek dañ lay jàppale noonu si laa jugee bokk dugg benno bokk yaakaar ànd ak jeunes yi fa nekkoon yëpp pendant dix jours au niveau national ñu dem campagne jàppale président Macky Sall ba ni ko yàlla mayee bi mu demee nag ba gagné après man 2012 si laa xaw a wu tuuti sur le plan politique. mais lu tax nga retiré wu nag jàppale nit ba mu dem ci pouvoir nga retiré wu. waaw loolu loolu objectif boobu la ñu amoon parce que gisoon nañ li am Sénégal ànduñu si woon ñu bëri dañ ko doon jàppale pour mu jël pouvoir bi bi mu ko jëlee man gis naa ni gisatuma fa woon sama bopp dama dem ma euh, continuer samay activité personnelle nekk samay liggéey nekk samay activité ba boobu sur le plan maa ngi doon xoolaat leader yoo xam ne si leader yi maa ngi doon jàng. leader boo xam ne vision am ak sama vision xaw nañu méngoo tuuti pour ma mën a ànd ak moom euh, sur le plan politique. léegi nag est-ce que gis nga loolu. waaw gis naa ko nag gis naa ko parce que depuis daaw ñëpp xam nañ ni maa ngi ànd ak le président Babacar Fall bii jiitee cees sur les rails du développement muy doomu Thiès moom laa àndal sur le plan politique ñu ngi liggéey liggéey bu rafet biir Thiès waaw. Euh, euh, léegi nag comme yaa ngi ànd ak moom. Euh, ci naka ngay nga koy jàppalee moom fii ci randu leen parce que fii aussi mooy feefu Idrissa Seck mi nga xam ni moo moo tere ne la wa régime bi. <laughs> waaye jàppale bi it foofu gëm naa ni am na lu si jot fes tuuti am na lu ñu si jot a gis parce que daaw si législative yi moom si boppam ñëw na fi seet si ma daaw randu leen jigéen yi ma nekkal di di liggéey ak ñoom au passage nag mënu ma wax te du leen lim gërëm leen parce que bu doon man kese du dem mais boobu ba léegi ñoo may jàppale ku si mel ne Gracé Thiam Miss Mbaye Binta Kassé Siré Bousso ak jeunes yi fi nekk yëpp ñoom Ousmane Kounta Papis Aw ñoo ma jàppale si liggéey bi ñu nekk si proximité yi porte à porte ba biir njoobeen ñoom maire Fandooy ñoom ñëpp ñu jàppale ma si liggéey bi li koy wa li koy firndeel sax mooy daaw boo xoolee législative yi voix yi ñu Idrissa daan gagné bu njëkk ba wàññeeku na bu baax a baax parce que nga daan dugg si benn salle de classe par exemple Idrissa rawee ñu fa ay 100 plus de 100 voix mais écart bi bi yoon ak législative yi xaw na wàññeeku boobu ba léegi nag taxul ñu bàyyi wu ñu ñi ngi continuer si liggéey bi on est sur le terrain ñi ngi ànd di liggéey. léegi yeneen parce que APR aussi leader yi bari nañ fii Babacar Fall mi ngi fi mais leader yi bari nañ fi. waaw loolu dinaa ci sawar a tontu tontu torop bu baax Thiès leader yi bari nañ fi torop torop torop torop torop mais man duma duma làkk sama lider di xarab beneen lider man jàpp naa ni leader yi nekk ci amul si yëpp a baax gis nga politique ku koy def si tu n'es pas généreux nga baax nga yaatu doo mën a accepter nit ñi bay dugg si politique. comme jàpp naa ne leader yi nekk Thiès ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ku si nekk am na lu la yàlla may certes nag yaa des problème mais problème yooyu yëpp li ko lal man jàpp naa ni problème mu communication si la bokk. seen diggante problème am na ñoom li leen wax mooy leader yi. ñu toog waxtaan am benn cadre un cadre de concertation boo xam ne dinañ mën a toog dialogue dialogue bu baax communiquer bu baax waxtaan parce que depuis des années ñi ngi fii problème yaa ngi am je pense que benn problème boo ko amee tey lijjanti woo ko nga ni da ngay xaaraat ba si kanam booy lijjanti dootoo lijjanti benn problème mais mille problème ngay lijjanti donc il est temps que leader yi nekk Thiès yëpp mooy ñi nekk APR ñi yor mouvement yi de soutien yi ñu bañ a xeeb kenn ñoom ñëpp ñu toog ñu waxtaan pour l'intérêt des Thiessois yi nga xam ne ñoo nekk a Thiès bëgg a jàppale président Macky Sall te bokk benn bokkoo benn bokk bennoo bokk yaakaar loolu rek mooy solution bi parce que actuellement ku nekk ngi bouger de de son côté mais c'est un peu dispersé ku nekk da ngay dem te ni ngay demee je pense que bu ñu toogee booloo waxtaan teg benn teg stratégie bu leer ñun ñëpp ñu ànd liggéey euh, dinañ attendre sunu objectif incha allah. parce que li ñuy wax nag bu ñu nekkee say ñun ñëpp ñu booloo kenn du xaj suñu diggante mais bu ñu demee de manière disperse rek coow dina am combat mënul am si biir combat ñun mënuñu di jàkkaarloog waa opposition bi ñu am combat diggante ñoom ba pare ñun suñu biir mu war a amaar ay combat leader bu bon nag amu fi suma benn leader bu bon ñoom ñëpp dama leen di sargaal di leen delloo njukkal parce que nag am na lu ñu fi def ba yegg si fii bu ñu fi deful woon lenn yi heure bi dootuñu wax Benno Bokk Yaakaar Thiès mais ku nekk yaa ngi bay sa waar si tool bi lenn aussi am na <laughs> du man dong maa koy wax mais ñu bëri dañ koy faral di wax yenn leaders yi Thiès ils ne sont pas accessibles loolu aussi problème la am na leaders yoo xam ne ils ne son pas accessibles et je pense que ni leaders yi li ñu am ils n'ont pas le temps certes ndax ñi ngi liggéey ñii ñi ngi ne yor ay direction ñenn ñi ñi ngi si yeneen sociétés yi mais il faut que ñu gën see góor góorgóorlu gën see góor góorgóorlu mënul weesu ñu gën a jege militants yi dañuy toog di waxtaan ak nit ñi ñu ñuy wax lu mel noonu parfois jot leen téléphone sax problème la quelque rare nag je vais citer que am na loo xam dama ko dund sama leader moom du ma bëgg di wax ci moom lu bari parce que toujours su may wax dañ naan sama leader la man ma audience pour gis ko saa yu ma ko bëggee gis dama koy gis loolu rek dama ciy sant sunu boroom te bari na si ay nit Thiès aussi dañuy def témoignage boobu si moom Babacar Fall saa yoo ko bëggee gis gis ko ku mel ni Ndeye Tické Ndiaye aussi saa yu ma ko soxlaa bëgg ko woo téléphone dama koy jot docteur Ndiaye la même chose de ko que nu Diouf kenn ki ma si gën a marqué man ak moom mosuñu gisante liggéeyuma ak moom mais doomu Thiès la te day liggéey liggéey bu rafet Thiès muy Maodo Malick mbay bu gëm sa bopp man xaw ma ko nii personnellement mais su dañuy daje sur le terrain may daje ay femmes am ku mel ne ay dañuy liggéey mais sama benn càmmiñ bi ma ko waxee liggéey bi ma bëgg sumb bëgg si liggéey ak ñi ma si bëgg ànd ba tudd turu Maodo Malick daf ma ni Maodo de mooy nit koo xam ne boo ko messager sax dalay woo te effectivement jox ma numéro Maodo ni ma wool Maodo nga waxtaan ak moom dama génn biro Biram Fay sama càmmiñ maa ngi koy nuyu au passage woo Maodo téléphone am sonewul lu mat ñetti yoon mu décroché téléphone wax ak man leader yu mel noonu dañ leen a soxla Thiès leader yoo xam ne saa yoo bëggee wax ak ñoom di leen jot di nga mën a wax ak ñoom parce que li ñuy wax ak ñoom du suñu problème personnel problème mu Thiès problème bi ñuy dund cees ak li ñu bëgg liggéey ko biir cees loolu moo tax peut-être ñu leen di solliciter waaw. Euh, ci ni nga waxee unité ak ni nga waxee leader yi ni ñu nekk benn est-ce que yow euh, di nga dox ci sa doxalin naka nga koy feeñale pour wane ni leader yi ñëpp benn waaw loolu rek ñu ngi siy waaj a ñëw parce que comme ni ma la wax nii rek am na benn planning de travail boo xam ne ñun waa leen yi nii ak femmes yi ma àndal teg nañ ko. ñi ngi waaja a ay activités yu bëri yoo xam ni képp kuy leader nekk APR amuñu xàjj ak seen dinañ leen woo ñu ñëw wuy si ñu. képp ku yor mouvement nekk doomu Thiès jàppale président Macky Sall ñoom ñëpp dinañ leen woo ñu ñëw wuy si ñu. ñi ngi koy waaj a taxawal tey dinañ sol sunuy dàll dem si ñoom waxtaan ak ñoom kenn par kenn tegal leen sunu programme programme nag politique surtout boo nekkee femme leader. doo toog di xaar rek ñu naan la defal lii defal lii da jël ay initiative ñun jël nañu suñu initiative boo amul oto bëgg ku la yóbbaale soo amul paas boo toogee sa kër doo gaawa dem il faut nga génn nekk si yoon bi xëy na boo nekkee si yoon bi dinañ la dab nga am ku la yóbbaale moo tax ñun dañuy jug anticiper si liggéey bi jug commencer liggéey bi certes nag metti na li metti mooy politique parfois laaj na moyen ñun loolu lépp xooluñu ko loolu lépp xaaruñu ko dinañ jug. sol suñuy dàll li ñu war a liggéey biir cees ñu liggéey ko biir cees ku ñëw fekk ñu xam ne ñu ngi ci yoon bi ñu ànd ak moom liggéey amuñu si xàjj ak seen li ñu ñor mooy la réélection du prés du candidat Macky Sall au premier tour loolu mooy suñu objectif te dinañ jug dox ko. yomb ci yéen de yéenay xeex bi ndax yéen a yor centre Idrissa Seck bi. waaw loolu léegi man defe naa loolu sénégalais Thiès waay léegi ñi ngi commencé yeewu tuuti président Idrissa doomu Thiès la. am na lu mu jotoon def Thiès mais loolu c'est du passé passé la léegi actuellement nag xew nag te nekk ci jamono dañu war koo nangu yàlla teg ko fi ñun teguñu ko fi de yàlla moo ko fi teg dañ koy nangu mooy président Macky Sall moom la yàlla jox nguur gi yàlla jox ko euh, li nga Euh, euh, li nga xam ne moom war na si mën a jàppale waa Thiès kon mënuñu koo bañal on est obligé de travailler avec lui kon fi mu toll nii amuñu tiitukaay amuñu ragalukaay parce que am na loo xam ne président Macky Sall def na ko fi lu ni faa nga kenn du ko séntu asamaan jarul buuxante aéroport Blaise Diagne bi mi ngi nii cees jege waa Thiès waaye ñu ngi si gis seen bopp région de Thiès Mbour euh, tourisme bi léegi mi ngi gën di yokk loolu lépp Thiès mi ngi si gis boppam président Macky def na ko cees loolu c'est un exemple rek mën nañoo joxe yeneen exemple c'est bourse yi it ñu ngi siy wax man sama quartier bi ma dëkk rek am na ñu bari ñoo xam ne boo toogee di wax ak ñoom wax la ñoom bourse loolu ñu leen jox am na ñoo xam ne xeeb nañ ko mais ñoom ñi nga xam ne ñoo ñi ngi leen koy jox ñu koy jëriñu xeebuñu ko sant nañ si gërëm nañ si président Macky la bu yàggul tuuti rek ministre de la femme ñëw na Thiès ci DER bi financé na fi ay femmes yu bari kon loolu lépp président Macky Sall ñun mi ngi ñu yombalal suñu liggéey wax ji nag mooy ñun ñoo ko war a yombal liggéey bi fi mu toll nii li may faral di wax tuuti mooy bu ñu ñenn si leader yi ak si ñun bu ñu xoolee seen ginnaaw tuuti 2011 xool seen bopp fi ñu toll ren war nañu delloo président Macky Sall njukkal niñ ko mënee waree delloo njukkal mooy lan du ma ni président Macky Sall moo leen jox parce que président Macky Sall du mooy joxe sunu borom dafa jël seen wërsëg jaarale ko ci loxo président Macky Sall. kon président Macky Sall jigadiwu leen am na loo xam ne apporter na leen ko raison pour la laquelle ñoom ñëpp tey li leen war mooy lan delloo njukkal président Macky Sall delloo njukkal président Macky Sall nag mënul weesu ñu am esprit de dépassement bañ a xool li seen ginnaaw bañ di fayantoo ku la def rek nga def ko wala ku la wax rek nga wax ko loolu lépp dépassé nañ ko xam nga fan lañu toll ñoom ñëpp ñu booloo nekk benn bokk ndey bokk baay ànd liggéey teg benn plan de travail boo xam ne ñun ñëpp bu ñu si ko ñu xool yi leader yi nga xam ne actuellement ñi ngi fi nekk di liggéeyal président Macky Sall ku mel ni DG Siré Dia li mu nekk di ko liggéeyal doomu Thiès loolu rek doy na firndeel am na ñoo xam ne jot nañ fee jaar mais lañ lañ defal waa Thiès ñoom seen bopp nañu xool dañu ubbi seen bët ñu xool. njëkk a xalaat mooy APR. ñoom tey ñooy responsable yi ñooy kilifa yi ku mel ni si Dia aussi sañ naa ko lancer un appel parce que bu dul politique sam maam la dama bokk ak moom deret dama bokk ak moom Mody ja bokk ak moom galaajo Sall kon tey sët sañ na taxaw mu tàllal loxo maamam li ma koy ñaan mooy lan si xolam bu rafet ak si générosité bi mu am na woo njabootam na woo ay doomam na woo ay rakkam na woo ay jarbaatam si benn cadre de bañ a kenn ñu toog waxtaan seen biir waxtaan boo xam ne day nekk lu sincère seen biir la amoon yëpp ñu teggi ko teg fële xool la leen di jëmale kanam bu boobaa gëm naa ni am nañu yaakaar te yaakaar du tas incha allah waaw <laughs> di la di leen gërëm yéen waa Thiès 24 gis nañ liggéey bu rafet bi ngeen di def di nuyu ñëpp di jox rendez-vous Thiessois yi wax leen ñun waa Thiès sur les rails du développement bi ma bokk te Babacar Fall jiite ko ñun secteur Randoulène Nord ñi ngi ci liggéey bi te nañ ñu séentu fan yu néew dinañ ñëw ja waxtaan ak ñoom tegal leen suñu plan de travail ñun ñëpp ñu mën a ànd liggéey loolu laa leen di tàggoo di gërëm ñëpp di sant ñëpp di rafetlu ko jataay bi te di leen wax yemul fii ak fan yu néew di ngeen ñu déggaat te dinañ leen woo si yeneen liggéey incha allah.